haroon nee na wa asim bi farisin wa jibrilu qadimun warsun xiyaarum li fadiliyati walil kowni kullun wa hawa asalaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen di nuyu rawatina ñi nga xam ne ñooy safoo seen parce que ne ànd ak yéen ci lu jëm ci wàllu tamxarit tey na ñu bëggoon a waxtaan yéen ci wàllu actualité waxtaan woo xam ne na nañu ci bëgg a ànd ak Oustaz Mady Cissé Oustaz Mady moomu nag bi ñu ko waxee nekk na jàngalekat alxuraan boo xam ne ku ràññeeku la ci dëkk bi mu nekk muy Kër Balla nekk na Oustaz boo xam ne tamit ku ñëpp xam la ku am pasteef ci li muy def la tey nag moom leen fas yéen àndal ci waxtaanu tamxarit bi ci waxtaanu tamxarit moom leen fas yéene àndal kon nag sëriñ bi asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Maxtaar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Euh, di la delloo nuyoo ci li nga xam ne moo moom nga ñuy bëgg a laaj gannaaw bu ñu nuyoo mbokk yi internet yi yëpp. waaw tey sëriñ bi nag li ñu bëggoon a waxtaan ak yow. leen bëggoon a waxtaan ci yow tey jamono ji Sénégal yi nan la ñuy dundee ci wàllu tamxarit muy lu jëm ci dundin bi ndax méngoo na sariya wala méngoo naa seen aada wala méngoo na ak diina ndax jamono ji kat folklore bi dafa bëri ci tamxarit bu ëpp léegi nag ñu bëggoon nga dafa ñu ci ay jàngat ay leeral. incha allah yàlla yàlla woyofalal ñu ko bañ man koy jàllale kem ni ñu ko bëggee. mu mel ni da nga laaj lu ama am am solo muy wàllu asura baat bi nag baatu arab la bu ñu ko doon tekki ci olof dañu lay wax mooy bisu fukkeel ci weer kay bisu fukkeel booba nag am na suñu mbokk mu baax moo xam ne ñëw na ci ginnaaw xam naa ne bala ñu jàll dañu nuyu mbokki internet yépp di nuyu ñi nga xamne ñoy ñooy soppu Farokh TV euh, ak képp ko xamne yalla mëna dogal émission bi daw ba ak ci ci say gët di nuyu Sénégal di fi ñaan yalla wacce fi jamm sëñ Matar lool boo ñu ko da nañu sawar lool ci euh, jàllale ci kem katan xam nga doonaan andul ak diina sa parce que njëlbeen li diina la kon day ànd ak diina doona àndul ak aada ndax ñi ko fi sos ci réew mi leen dëkk ca nañu koy defee ñoom am amma jëmmi jëmmi asura lu jiitu juddug yonent bi sallallahu alayhi wa comme jiitoon na juddug yonent bi sallallahu alayhi wa bi gàddaayee Medina ñëw gàddaayee Màkka ñëw Medina fekk ñoom ñu koy ñu koy màggal mu ñëw laaj leen ñi wax ko mu dëppoo seeni diina mu ne moom it kenn gënul koo yeey ci seen yonentu moo waral mu suubu woon ca loola dan ci dan ko woor di màggal bis bi kon danga koy deloo ji si diina soo ko indee ci si ngi réew mii nag di sénégal wala li wër sénégal gambi mourtani mali soo ko deloo si ci foofa la cay yokk loola mooy nekk aada aada mooy loo xam ne eh, du diina waaye lu ñu baaxoo hoon daan def la su diina ñëwee fekkee mu dëppoo ak moom mu ànd ak moom su fekkee dëppoo ak moom diina dindi ci lam ci mën a dindi lu mu ci mën a dindi mu ànd ak masaam kon man ngaa wax ne diine la aada la nañu koy defee nag xaj maxtaar léegoo léegi mu yéeme lool li tax mu yéeme mooy euh, islam ñi nga xam ne dañoo jóg ngir yàq ko dañu ko yàqoo ci façon yu bari bari bari bari euh, alquran mm-hmm. dafa wax ne afa bi haazal hadiisi taajabuuna wa tadaxakuuna wala tabkuuna wa antum saamiduuna te yéen fasjudu lillaahi waabudu bi nga xamee ne daare alquran yi jiit nañ ci réew mi di jàngale alquran jamonoy dox ba tubaab yi ñëw installé liñ installé dañoo jaaree ci suuf comme ni nga xamee noonu nga xamee réew mi ni muy tourné léegi rek ñëw buux la ay millions jox la dund gàddu la lu bëri ñi nga xam ne ñooy jàng alquran bis bi nga xam ne mooy bisu Ashura te mooy bisu Tamxarit nit ñi war ci bégal seeni njaboot ñu néew doole ñu dimbale leen ci te boo bàyyee xel dañ naan bisu Ashura te mooy amul kenn koo xam ne am nga sañ-sañu ñàkk a lekk xam nga loolu aada du diine waaye boo xoolee la lalu ci suufu adaja ja la ca lalu mooy li ñu bëgg moy képp ko xamé nek nga ci dëkk bi ndax jamono tuma rank dafa xawoon am jamono bu ñëk mom dund dafa xawona jëfé lool ay do seen massa bi nga xamé na dund dafa xawona manki légo la yow da nga am dund bu ma sëkk mm-hmm. waye ki du am dund bu ma sëkk légui nak bis bi nga xamné dañ ko defal fét ta moy tam xarit mm-hmm. ñu bëgg ñu togg yu mat mm-hmm. ñi nga xamné seen i waay juri jamono wala ñu nekk ay ndongo daara daara ja xaw a diis wala ñoo xam ne amuñu moyen yu ñu mel ñu bëgg ñu ñëpp ñu jox leen lekk ba suur su ko defee bu ñu lekkee ba suur loolu la ñuy naxee nit ñi xamal leen na leen ku lekk ba suur lu ñuy wax muso koto du la mën a waaye muso koto moom du jëmm ju taxaw ju ñu xam bi loolu amee jamono ji fekkeen jamono jii la xam ne mooy actualité dañ naan ñooñu lobi la ñuy doon waaye jamono jooju ñooñu daan def télé amul rajo amul amul ku la mën a jox information waaye danañu jaar ci suuf jox kilifa dara suñu joxee kilifa dara kooku mooy ñëw bu fekkee taale bi day ñëwoon naan taata buun mooy taaja buuna. baatu taata bon. wan na ji mi ida hawa maa dolla wa maa hawaa wa maa yantiqu hawa ñun de lii ñu ŋànk di def te mooy génn ngir néew gu ñu néew doole ci réew mi ñu nekk te mooy réew Sénégal li ñu ŋànk di ko def. te mooy bis boo xam ne ñëpp waroon a siggi lekk ba suur naan ba màndi ñun ñu xañ ñu ko danañu génn di jàng wa na ji mi ida hawa ña ca def topp seen gannaaw naan àlle wan na ji mi jeex àlle ida hawa jeex ma dalla jeex saahibukum jeex bi ci saay saay ci duggee te ñoom jàng nañ comme ñee niñ jàngee ñoom ñoo ñëw na jël taajaboon taajaboon ñu ngee taajaboon kaddu yooyu ñu ci dugal yoo xam ne ni maanaam teggiwul ñu koy wax ci yenn site yi ndax site ku ko xam xam ne ci diine lay lay lay dox ñooñu dafa am benn so benn affaire bu ñu soxla la ñu soxla mooy dañuy bëgg a ñëw euh, sëñ Maxtaar nu ma la ko bëgg a dañuy ñëw tekki li nga yore moom lañu moom la France di wax diaboliser maanaam dañuy ñëw tekki la nga yor lu rafet ñu ñëw di ko salteel. diaboliser ko maanaam ñu ñëw. wa waaw dal ko ba keneen dootu ko bëgg. dootu ko bëgg. yow mi koy wax sax dootu ko bëgg. waaye nag biñ koy indi bees bi doo xam lan lañ bëgg a wax góor ñi ñoo daan sol ñoo ñoo daan génn daan dem di di di taatu boon léegi jigéen ñi ñu boole leen ci au lieu jigéen ñi sol yiree jigéen ñu fexe ba simmi jigéen ñi solo leen yiree góor ngóor jigéen a ngóog ñu fexe ba góor gi simmi yiree góor yi sol yiree jigéen ngóor jigéen a ngóog soo ju duggee soo ju dundee lu mat juróom fukki at mm-hmm. daanaka xaaju seegal bi day jeex xaaju seegal boobu bu jeexee mm. xale yi nga xam ne ñoom lañ formé woon ca loola dañuy nekk pas ba commencé di génn jamono su doxee nag ba am ay ay ba am benn seekal léegi dootuñu xam lan moo waral lobi boobu taata boon googu lu ko waral ba salte bi ci am am ci su ko defee nag lépp lu ci amati daanaka folklore lay doon loo xam ne ay font kese lay doon yàlla dootu ci nekk yërëntu dootu ci nekk te dañu ci war a xalaat moom loola waaw loolu sëriñ bi danoon na laaj tey mhm. maanaam mbiri taata boon jooju ndax fi ñu toll nii jamono ji ñu toll nii nii nii nii ci daata boñ ni daata boñ comme nu mu tasaaroo ak nu mu yàqoo mm-hmm. ndax jotul tamit léegi ci ñeen ñi nga xam ne yéen yéenay sëñ daara yi mm-hmm. nekk borom xam-xam yi mm-hmm. ñu toogaat ñi dell waxtaanaat ci mbiru taata boñ ci ndax comme day taata boñ dafa lu ëpp ci départ bu njëkk ci ñin leen fàttaliku mooy ci ñooñ daara la ëppee woon ñu dem moom yàgg waa dëkk bi di ci wàll si ndax lu ëpp taalibe yi ñoo daan taata boni mm-hmm. ñu dem moom yàgg ci waa dëkk bi di ci wàll ci dem moom yàgg ba léegi nag fi mu toll nii mm-hmm. daanaka taata bon ci léegi taalibe yi bëreetuñ ci mm-hmm. ndax ñooñu daara moo bëreetuñ ci léegi nag dafa nekk ci askan wi waaw ndax léegi nag fi mu ñi nga xam ne yéen yéenay kilifa yi jotul tamit tamit ngeen toogaat léegi ñu xoolaat mbir moomu ndax fi mu toll ne léegi ci turu diine lañ koy def te du diina loolu léegi man moom damaa jàpp ne léegi yéen ñi nga xam ne yéen yéen nekk ci diine ji war ngeen toog ngeen waxtaanaat ci loolu waaw man waaw sëñ Maxtaar. waaw. Euh, kanaa góorgóorlu kem kattan. waaye diine ji jamono ji ñu toll nii. man naa la wax ne su fekkoon ne da doon bëree. ma ne la fañ ko wër ndombo. daanaka mën naa wax yëgati nañ ko sax. ba bëgg a dóor ci suuf. yàlla yàlla awal ñu ko. Euh, ndax ñooñu ma lay wax. ba ñu jaar ci suuf di yàq. ñan doon yàqal xamuñu woon ne dañuy yàq ndax ay ree lañ ko doon def boo ko bàyyee xel dem nañ ba fi mu ne nii boo génnoon ci euh, ci ci euh, ci bisu taata boon te mooy tam xarit bu ñu reeree ba noppi da ngay yëg ne même taale bi bu génnee ci daara ji du sawar dina wax naa wër na mi jeex waaye daanaka li ñuy tudd yëpp daanaka boo xoolee ay xawara lay doon te boo ko defee ci nga ëppale am koom te ñoom koom moo leen taxoon a jóg kon loola yoon la nag ñu alerté jéem a delloo si njaboot gi xamal leen ne yoon wii ngeen jaar ay yàqkat ñoo fi jaaroon ngir am lu ñu soboote bëgg ñu liñ jàpp dem ba ci kanam nam wéree woon ko wéree ndax am na fu ñu wiiri te ba ñu fay wiiri yëguñu ko kon loola loolu noonu lay demee. beneen bi ci topp tamit. ñu doon laaj maanaam wàll réer yi. Mhm. comme niñ koy defee. Mhm. di ci togg ay cere. Mhm. ak ñi bëggoon xam mm-hmm. ndax weer yooyu dafay jaadu mm-hmm. dëkkandoor yi nga xam ne ni ñu ngi dend mm-hmm. te loolu tamit ñu bàyyi xel ñu si fàttixante ndax léeg nga gis dend sa dëkkandoor mën na am doole ci demewut noonu ñuy defee reer sa lu ne def ci cere yi lu ne nga togg ko wala ku lekk yow sa njaboot bàyyi sa dëkkandoor beneen bi ci topp tamit wàllu dépasse bi ñuy def ci tamxarit ñu bàyyi ci xel ndax uh, li ci diina wax ci yooyu noonu daal ak aada yi nga xam ne ni moom lañ dund ñun ci réew mi Mm-hmm. ak bu njëkk nan leen doon defee réeri tamxarit dañ naan bokk ñëpp lekk wala dañ naan togg ak ni ñu ko aada doon defee bu njëkk ak tey jii ni defee daal. waaw sëñ Maxtaar euh, bala may ñëw ci loola. dama lay euh, xamal na la. xasan mi nga xam ne moom moo moom la wax seexandooru Xuseyn. waaw maanaam naam du seexandooram waaye seexandoor li ñu ko mën a wax Sénégal kon seexandoor la. waaw dégg daanaka bala rey Xuseynu mm. moom dañu ko fexe ba boole ko soxnaam xamal soxna si ne ko boo ko poissonné ba mu génn jamono yow danañu danaa la jenc takk la soxna may la xaalis mu fexe ba ray kooko ca poson bi mu demee ca buur bi pour mu jenc ko buur bi ne ko danaa la jox xaalis ba ma la waxoon waaye du ma takk ndax su ma takkee mën nga maa def comme na nga defoon sa jëkkër gis nga même reer boobu lu mat a bàyyi xel la maanaam reeru Sénégal nag nga amul amul muskila waaye nañu toggee ñam yi cere nga def ci batanta jaxatu ñambi carotte yéet géej yàpp ginaar eh, eh, eh, yàpp nag meew ah suukar raisin ah yëpp nga boole ko ci même yow bu waxuma la boo doonoon boo doon boo doonoon docteur même boo doonoon docteur sax war ngaa xam ne loolu bu duggee sa biir faaw mu am intoxication kon dafay mel ni gannaaw boo reeree lekkee reer ba noppi ba léegi saay-saay sa jiitu woon démb mm. ca xasan ak soxnaam mm. doon yàq day mel ni ba léegi saay-saay sooyu est-ce que du ñoom ñooy influencer nit ñi ci reer yi ba tey ci reer yi ba léegi ndax nit su fekkee dama bëgg lor bëgg laa yàqal bu la jàllee ci jaaree ci côté diine mm. yàq ca lam ca mën a yàq même bu fekkee la mu bëggoon amul ko mm. day jaar ci côté wér gi yaram ndax liimal liimal la wér na ne lépp doole si cere Sénégal dañ koy def. waaw ndax booy demee tamit ci borom xam-xam yi sëriñ yi du ma la dagg sax. <laughs> nga baal ma àqu. Mm-hmm. waaye wax ne lu ëpp ci feebar yi mu nga jógee ci suñu lekk yi rek lu ëpp ci feebar daal ci lekk la jógee doomu aadama moom ku la ëpp lu muy rekk moo la ëpp lu muy feebar kon nañu bàyyi xel ci loolu. Mm-hmm. rawatina kon. kon mu ngi noonu su ko defee loogu nag léegi nag loola bu ñu ko xamee ba léegi dañuy jaarat mooy fa ma la waxoon lañuy jaaraat rek saay saay si du ñu dëñ mukk di ñuy jaaree ci bépp bunt boo xam ne man nañu fa jaar ngir yàqal ni ndax saa woo manqué wér-gu-yaram ci ñoom ngay dellu ñu lay fajiwaat kon nag man loolu damay alerter ñi nga xam ne ñooy togg reer yi ñuy fexe ñi def ko reer boo xam ne bu mën a dugg ci biir dangay ngay xel cere ji nga xam ne moom lañuy togg su ñu ko toggee neex mi rek bu ñu ko tegee fee bu la xeñee rek sa biir bi commencé camembert ñi nga xam ne kese soo ko defee même boo ko defee ci cere ji ñetti kudd boo ko ci lekkee sa biir bi day fees day day day gonfale li ci gën a yéeme mooy gis nga cere jooju bu fanaanoon cere ji bu fanaanoon boo xëyee maanaam day ubale foofu yëpp léegi nag naka la duggee ci loo xam ne ci biir boo xam ne bu mu duggee day kasoo ci benn place nar fa fekk beneen tàngoor. ak biir bu war jaamu yàlla. ak biir boo xam ne dafa war a jaamu yàlla. boo ci jógee daanaka nelaw ngay tal su ko defee kon man loolu li ma ci lancé message di ko jàllale ci sunu site bii di soppu Farokh TV mm-hmm. mooy nañu fexe li ñuy togg mu nekk cere yoo xam ne cere yu mucc ayib la mm-hmm. lañ see def it mm-hmm. na fekk mu dëppoog la ci war a dem su ko defee képp ku ko lekk da nga mën a téye sa kurus lu mu néew néew nga jàng junne xul laaw wala nga jàng junne salatu fatihi wala nga jàng sa ñaari isib alquran wala nga naa naafal sa say nga toog xalaat ci yàlla diggante daaw ak ren ñaata nga fit bokk bokkutoon nekk ñu gunoon la wér gën laa nekk xale ëppoon la alal ëpp la moyen feebar dem hôpital faju ba génn jamono yow nga nekk fi wér nga xalaat yàlla donte benn trente minutes la nga xalaat ko yàlla donte defoo dara loolu man moom laay laase mm. képp koo xam ne mm. yow a ngi togg wala ngay dimbali kuy togg hmm. kon nak mbokk mi ñi ngi gannaaw waxtaan wi amna solo legi ñi bàyyi la nga wae tok wa seen bi rek da balo mbokk yi waaw waxtaan wi amna solo waaye nag dafa fekk ne mbiru temps la comme mbiru temps la nag dañ koy tënk léeg-léeg yi ci bëgg wax yépp ci xaj waaye nag euh, leeral bi am solo waaw comme toll nanu daal nga tàggante mbokk yi rek ba beneen yoon insha allah rabbi waaw kay sëñ maxtaar euh, kon xam ne ah li olof Ndiaye di wax naan li duuf ci cin li li duuf ci nag wi xajul ci cin li kon xam naa dañu koy yemale foofu di ñaan yàlla donte ñun waxuñ fi xam-xam it mm. liñ fi wax la ci jub mm. te néew yàlla wàccee ci barke ba nit ñi mën koy jëriñoo euh, di ñaanal waaye site bi nga xam ne Mouhamadul Amine Cissé mm. mooy ki nga xam ne moo ko jiite ak personne bi mu àndal yépp ñi nga xam ne ñoo ànd moom di couvrir mm-hmm. programme diine yi mm-hmm. yëpp te di ko sant di ko encouragé mm-hmm. xamal ko ne ko donte métti na ndax daanaka jamono ji ñu toll nii boo ubbee site te waxu la lu du mbóosóori ki fontu daanaka vie yi ngay am du demee noona te boo amul vie heure bu nekk ngay lakk sa connexion di passe di yéeg di wàcc ngir rek loolu yëpp nga bëgg diine avancé ko jar na ñaanal yàlla kon ñu ngi ñaanal soppu Farokh TV. Hmm. yàlla defal ko lu kawe njortam. Hmm. Euh, di ñaanal ñi nga xam ne ñooy waay kër gi. Hmm. suñu waay kër euh, euh, bàyyi Moodu Ba. ak soxnaam Yaamati Guèye. ak Baye Ibrahima mi nga xam ne mooy taawam. di nuyu waay kër gi yëpp. góor jigéen mag ndaw. waaw di sant comme ñoom sëñ sëñ Alaaji Madi Cissé. fële ca daara ji nga xam ne mooy madrasatul am wasalaam te ki ko jiite di Serigne Ousmane Cissé euh, di nuyu waaye daara Arafat ki nga ki ko jiite di Madi di man jàmbu xeeb bii di wax ak yéen euh, maa ñëwoon doon nap bi ak yéen di nuyu Serigne Diop ña nga xam na nga xam ne moom liggéeyu daara ja daanaka lu fa dox ci moom la ak dong ya fa nekk yoor euh, xalqa alquran ya ak jigéen ñi ak ñëpp di la nuyu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggu fii ba beneen yoon ci beneen numéro insha allah rabbi farisin wa jibrilu qadimun ursun xiyarun xaafiruna lifadiliyati walilkowni sullun wa hawaanu rasaili